nopp dalooti xibaaru buzz tàmbaleeti waxoon naa leen ko dee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 ñépp xam nañ li mu mën a jur dëgg la science nag yegg na foo xam ni mën nañoo fabriquer lu bare bari waaye nag ba léegi seen xarañteef yeggagul ci mën a fabriquer deret ay waay may ji leen deret waay ma ne deret moom nit rek moo ko mën a may nit te sax mayante googu ñu koy mayante day fekk ñu bokk groupe ñàkk réserve bi centre national de transfusion sanguine gi ñàkk deret insécurité eh, bu mag la ci ñëpp laa wax ndax nattu dafa gaaw ma ne réew moo xam ne saa boo yeewoo dégg l'accident saa su ne jigéen ñaa ngi matu ak yeneen ak yeneen poosu deret ya bu demee ba vide musiba la moo tax ñëpp war nañoo jóg dem maye ji deret ngir sauver ay vie moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Kolda romb na doy waar ñaari groupe bu jeune ñoo fa doon xeex-xeexoo bu métti ba kenn jaare fa ñàkk ba ak koo xam na ni jëlee na ci ay blessure yu graaw a graaw waay waay fitna baaxul mbir moomu na ne nee ñu mu ngi xewee ca village bu ñu naan Mamadou Giro nekk ca commune bu Bagadaaji waa jeune village bu Sinthiang Sirin ñoo ñëwoon seet si jeune yi ñu dalal leen waaye bu jeune Sinthiang Sirin yi di ñibbi seenu village bu Mamadou Giré yi daal leen gunge bi ñu yeggee nag ba ci école élémentaire bi village bu Mamadou Giré ci la xeex bu metti éclaté ci seen biir waaw lu indi xeex ba moo jara laaj na naka noonu ñu jàppante jàppante yu metti ba kenn ñàkk ci bakkanam ak keneen koo xam ne jële na ci ay blessures yu graaw fi mu ne gendarmerie ubbi na ci ab enquête ma ne ma bamtuwaat ko fitna baaxul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Malicounda romb na day waar ñeenti def ko ti ñaaw def ñoo fa dugg ci ab kër jàpp gardien bi wulli ba muy bëgg dee dugg ci gettu xar yi sàcc fa lu toll ci fanweeri xar gétti gi nag nee ñu ay xaru laadum ak ay azawat ñoo ci nekkoon moom daal septembre bi weesu la fa samba boyi dal di dugg foofee ca Malicounda ca njoobeen dal di fay def njombelu rëy loolu secteur boobu nag di Mbour nee ñu insécurité bi foo ko natt wees na ko moo taxit bi gendarmerie dafay intervention rapide tax na ba yenn xar yi ñu sàccoon ñu teg leen loxo ya ca des ñu leen di wër yenn xar yi ñu gisaan na ña ngi leen fekk ca Sinthiou Mbadane Pël di ab localité boo xam ni nee ñu def katu ñaaw teef yëpp fa la ñuy làqatu <laughs> ma ne réew mi de nii rek am na ñoo xam ne bu ñu xëyee yow sàcc rek la ñuy canaliser mais nag li xew ci réew mi métti na trop trop trop ndox mi wàcc Touba Kaolack Kolda metti na trop trop trop trop trop trop mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz